jigéen ñi itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla jox leen barke parce que jigéen barke rek mooy ndamam barke nag du am fu mu yem yàlla mën na la ko defal defal ko sa njaboot defal ko sa sët defal ko sa jëkkër tabarkalla lool rek mooy li ci am solo li góor gi daan wax ko ci bëgg sëriñ yal na la yàlla jox sëriñ bëggan ci yow ah ku ci am sëriñ yal na ko yàlla téyelee ba xeebeel bañ a dugg loolu rek lañ leen di ñaanal